waaye léegi man damay dugg ci benn affaire. Uh-huh. parce que dama doon xool ay recherche ci njaag ba d'habitude parce que man balaa maa def ak eh, émission ni kii dinaa am fu dugg ruuxu ruuxaat yi jéem a xool quoi mais dama gis ci internet bi ay photo yoo xamante ni bi daf ma jaaxal. Uh-huh. muy yow ak Queen Biz. Uh-huh. ngeen di longante ah. ah mais photo kese nga gis wala photo kese nga. non moo gis tam benn site bu ci bind benn article ne yow ak Queen Biz da ngeen génn sa relation ak Queen Biz daa bëgg nga wax franchement euh, avant tout je dama am soxna parce que je suis animateur je suis junior wala bu ne Je xaw mhm. mhm. donc vraiment je ngi ci côté quoi mais qu'une bise, qui dara man mais les photo photo la. photo c'est Facebook ko photo tournage émission émission Musicolor. Mhm.

Euh, DJ la quoi bu mag bu nekk ci benn rajo mu ñu photo noonu quoi affaire yooyu noonu mu ne waaye photo naa yàgg kii bu ngeen di bëree photo yu nice ma ko ah, am euh, man tamit man tamit ma jël quelque publier ko sama Facebook. mais uh-huh. nekkul photo yoo dañu simmee ko wala dara dañu doon bëree nii rek wala ñu ànd di dox. Uh-huh. après ci montage bi mën nga xool photo yi sax. photo yi uh-huh. c'est pas compliqué c'est pas kii mais ma xëy un jour gis Ndiaga Ba ak se sont donné rendez-vous à la plage nangam sangam pieds nus l'atmosphère est douteuse donc c'est pas vrai déjà quand bind ça, Consultez-moi. ma Facebook je récupérer photo yi rek pour bëgg jaay dara je sais pas. Je ne sais quoi. Mm-hmm. donc c'est pas sérieux soyons honnêtes. mais les a mm-hmm. mais article ont la aire tido Tido. no tido. Tido tid pour lan ku def mooy tit aire tan moom ma jàpp quoi après mo kiwin sa? ma ne kiwin mais gis nga le gars yi publié mu ne mo gis naa ko bu yàgg yaa ngi yaa ngi ci mau, a jot mu ne ma gis naa ko depuis un mois xaw ma deux mois waxu ci dara kiwin bi non non waxul dafa reetaan rek waxul dara dafa ree après ma ne gars yi ñoo gaaw de affaire yow sa soxna lan la ci wax ci loolu moom de amul ne man doxuma ci ay yoy quoi xam ne man kilifa deug eh, la gor la quoi suma nexe amna droit am jabar ak yoy quoi mais xamna ne man doxaanu ma maanaam doxan kat ah, nekuma fi manam di doxan mais suma fekkone par exemple affaire bu manam suma amna droit tak jabar suma nexe eh. amna droit tak ñaarel parce que eh, gor la te je suis polygame julit la ah, c'est vrai que des fois ñu waxal la ay da ngay genn ak diw da ngay genn ak diw la do affaire qu'une bis kese des fois ça par exemple. ça m'est arrivé un jour. Mhm. ben xalé bu jigéen wo ma téléphone. jékki-jékki di ma wax ay waxu ben copine am boo xam sama auditrice la won mhm. naan ma ay eh, man la copine diw. wa man la copine ndey Fatou damay fonci mot bi sax wa ndey Fatou sama auditrice la won par exemple man la copine ndey Fatou vraiment xam nga ndey Fatou jappal ci moom daf may wax say wax ndey Fatou nit ku baax ndey Fatou ni man ko hé eh, stop stop ndey Fatou ndey Fatou ndey Fatou nit ku baax ndey Fatou jappal ci mom lu xew.